fii ci sum ci bërëbu Serigne Fallou laa bëgg delloo njukkal les femmes du Sénégal fii ci sum ci wetu soxna Xadi Faye moom c'est la c'est le symbole de la femme sénégalaise de la femme sénégalaise engagée wax na ko na fi association femme de développement protection de l'environnement muy jàppale jigéen ñi di sàmm alam di environnement modèle la moo tax ma jàpp ne fii ci Soum ci Fatick ci Foundiougne ci dëkku président Macky Sall boo xam ne jeexal na lay tàmbalee sama campagne waxtaan nag mbokku Fatick waxtaan nag waa Sénégal femmes sénégalaises yi ay jàmbaar man nag man ingénieur la bu polytechnique lu ma jàng mooy andi ay usine xale yi liggéey. waaye tàccu leen loolu waay. man mii ma yokk ci docteur en économie la daanaka naka ñun ñooy faj koom-koom ku sa bopp di metti da ngay dem ci docteur koom-koomu Sénégal dafa feebar. xale yi amuñu liggéey dund gi dafa seer ñun ñoo ko war a faj dama bëgg ñu xam ne Sénégal suñu bëggee dund gi wàññeeku xale yi am liggéey koom-koom bi yokku kuy am 3000 francs nga dem ba 5000 francs par jour loolu lu ko mën a andi fii ci Sénégal mooy ñu andi fii ay usine ñun nag am nañu programme bu ñuy wax ARN Sénégal fu ci nekk xool na yan façon usine ñoo fa war a ñëw jàppale xale yi jàppale jigéen ñi loolu laa leen bëgg a wax fii